yéenekaay bi Amadou Ba Bassirou Diomaye Faye Abdoulaye Daouda Diallo Mame Boye Diao ak Ousmane Sonko ñoom la l'Observateur xëy indi seeni nataal ba di ñu xamal ne ay inspecteur impôt domaine la ñu ñu ràññee lool ci géopolitique bi te du ñoom rek ndax journal bi mi ngi ñuy wax ne mbir mi xewit la xewit wi docteur Alassane Ndaw di jàngalekat ci université Cheikh Anta Ndakaaru mi ngi wax ci l'Observateur yi mu jàpp ne moo ko waral inspecteur impôt domaine fonctionnaire yi te bari nañu ci politique bi journal bi nañu bu njëkkoon jàngalekat yeeg avocat yeeg consort daan gën gis ci politique bi léegi nag fonctionnaire yi wàll si nañu ci fës ci ne ci lëjji ba ci bopp ak mu njaay siise bu ONC 3D dañuy wax ci xët mu njëkk enquête yi ne ne fonctionnaire bu yëngu ci wàllu xaalis sab engagement politique dañ ko war a encadré Youssou di PCA bu Sonacos ne yu ci enquête yi ne kay dafa yoonu doxin wu yees mu indi tuddee ko open press tour Bougane 2024 tribune nañu moom borom open press tour bi di Bougane Gueye ma nga woon ca Tamba ca Kédougou ca Kaffrine ca Kaolack ak ca Fatick ngir faase ji fa Macky Sall ak waa këram li jaral laaj jamono ji point ak nee nañu mooy bu fi Macky Sall jugee lan mooy doon ëllëgu mu fi bàyyi ndax gis nañu ne militant yi fi yàgg xajoowuñu militant yi soog a yegsi Amadou Ba mi ñu bëgg a fal journal bi nee nañu amul lenn luy garanti ne bu falo ñu toppoon Macky Sall dinañu ko topp ndax féewaloo gi am ci biir APR dina jik parti bi ndax Benno Bokk Yaakaar aw fanam tërati lii lépp laaj yu journal bi di point actu xëy samp ci xët njëkk ci xët mu njëkk la mandat photo bu président Macky bu Aly Ngouille Ndiaye bu Mame Boye Diao ak bu Mahammed Boun Abdallah Dionne ni ñu wanee ginnaaw Macky fil seen yoonu bopp fas yéene samp seenum dënd ci élection présidentielle yi seen jëf yooyee journal la mandat ne nañu ba léegi Macky Sall mënagu ko wanaasu li neexu te wanaasu mi ci xët mu njëkk bés bi la xëy ba di ñu ba lépp booloo yéenekaay bi gis na ne bu ñu ci sàkkul pexe dina jur musiba ci environnement ba ak ci wér gu askan wa ñu wax ci wér gu askan wi ak journal Le Quotidien mi xëyee xibaar buy neex ñeel jigéen ñiy dund ak woppi cancer ci réew mi mu di ndimbal ak njàppale di subvention bu jóge ci ministre microfinance économie sociale et solidaire di Victorine Ndeye jëm ci jàppale ay jigéen yu amee cancer ci réew mi journal bi nañu tànn lu toll ci ñaar fukki jigéen ak juróom 125 femmes ngir accompagner leen ci seen traitement tànn nit yeneen juróomi téeméeri jigéen ngir tàggat leen démb lañ doon bi ci diggante ministère am ak waa LISCA mu di convention bu toll ci ñaar fukki millions ak juróom ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre démb la woon moo ne woon bés bi ñu jagleel wàllu napp gi ci réew mi la xëy ak ñun ci xëtamu njëkk ci xew-xew yi waa CAPS coalition des acteurs de la pêche du Sénégal xëy woon ca marché jën ba ca Pikine fa la xew-xew yi amee woon doonoon ci teewaayu Pape Sagna Mbaye ministre bi ñu dénk napp gi ci réew mi acteur de la pêche yi bàyyee ko woon fu nekk ci réew mi joxonte woon fa yi di dund journal bi nee nañu becc nañu ko fa fii ci Sénégal yi fi xew doy na waar yëral xët mu njëkk l'observateur ci Jurbel benn xale bu jigéen bu